2024 2023 exploration exploitation pétrole dafa waroon démarrer BP mi nga xam ne moom moo ŋànk l' essentiel de nos gisements mu ne da ko reporter ba 2024 2024 ñëw BP retiré wu du gisement de Teranga Yaakaar parce que moom ak état du Sénégal bokkuñu gis-gis ci ni ñu war a utiliser euh, le nu les fruits de de ce de cette de cette exploitation. mu retiré wu donc aujourd'hui Cosmos énergie euh, ak SAR ñoom ñoo des ci ci ci ci mbir mi la mhm. bi BP ne dafay reporter exploitation bi à 2024 nit ñi dañoo jàppoon ne incertitude incertitude yi eh, eh, politique électorale yi euh, moom moo moom moo taxoon keroog ci assemblée moo am un député bu jeté waat un pavé dans la mare ba Madiambal Diagne dugg si Birahim Seck dugg si ce député là il dafa am ñoo xam ne Ousmane Sonko waxante woon na ñoom pour que ñu changer li nga xam ne moom mooy accords yi euh, en cas de victoire Madiambal Diagne dugg si euh, interpellé euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Forum Civil Birahim Seck mais Birahim Seck a servi une réponse très cocasse en lui disant vous êtes un homme de médias et l'ami du président yow yaa gën a jekk ci leeralal ñu. pour Sénégal mais Birahim loolu mu wax dafa yomb trop. c'est-à-dire non dafa trop. cest à chaque jour mi ngi tweeté un député de la République du Sénégal député laa wax wax lu leer nañ nañ Matar Diop wax lu leer nañ wax ba ni sax président de la République Sonko bind na ko lettre di ñaan protection ndax liñ koy menacer ndax xaalis boobu député laa wax de waxe ko assemblée ñëpp dégg ko loolu ñëw après article boo xam ne le canard enchaîné la génn France Canal enchaîné c'est le journal le plus informé de France le 7 juin tudd Sonko tudd ay xaalisu Qatar yi tudd lépp décrire ko point par point ñëpp dégg ko fii Sénégal kenn commentaire ko député bi ñëw waxaat loolu joxaat yeneen détail man ma ci yokkaat leneen xaalis bi Qatar la jógee 20 millions de dollars la. fan la jógee. Qatar. non te 20 millions de dollars la mais ñoom nañu demandé ñu leeram ñii di tuite chaque jour ay. Alioune Tine ay ñoom Birahim Seck ay ñoom ñëpp nu traité mu euh, Ndiaye Cissé nañu ni xaalis bi nañ ko leeral sa veut pas dire que di di nit ko lubal wala dara c'est le minimum waaye non yow journaliste la war nga ko def mais journaliste la mais chaque jour ñu bàyyi ko fi dem di leeral nañu ni xaalis bi nañ ko leeral Karane enchaîné wax na ko un député taxaw wax ko Macky Sall dem dem du Dubaï. des sources informées di succédé wu jox ko détails yi dul jeex ci affaire bi mais nañ ñi nañu leeral mais lu tax mënuñu wax loolu attends mais attends ba société civile nga nañu leeral lépp lu jëm ci nguur gi dañ ko war a leeral chaque jour ñu bind ni moo voilà Moustapha Ba da nga war a leeral tel marché tel truc et cetera mais attends Canard enchaîné c'est pas de la merde c'est un journal d'investigation Matar Diop li mu wax dafa leer te dafa tudd daf ni président de la république Ousmane Sonko bind na ko lettre na ko président il faut nga protéger ma ak sama famille parce ne est menacé pour cette affaire là mais nañ ubbi commission d'enquête nañ ubbi commission d'enquête ñu xool 20 millions de yi fan la jóge kan moo ko joxe kan lañ ko jox ak lu tax ñu jox ko ko c'est mais taxaw ni non. kii journaliste war na ko wax te keneen ku wax nga ne nañu leeral ñëpp war a taxaw ni nañu leeral xaalis bii dañ ko war a leeral vingt millions de dollars la c'est de l'argent qatari xaalis bi il faut ñu xool créer une commission d'enquête wax kan moo joxe xaalis bi kan la ko jox lu tax mu jox ko ko biñ koy joxee lan lañ ci jublu. yàlla ma ci xam ci loolu. lu ma ci wax lan len nag may mun a. xam nga wax naa ne la xaalis bi Qatar la jóge 20 millions de dollars xam nga soo ko dégg loolu fa laa mën a yem xaalis bi nañ ko leeral. du ma waxaat nag pendant que vous du ma du ma amul leneen lu ma ciy waxaat dama ni man fii li ma nekk nii fa laa mën a yem nañu créer commision d' enquête député moo ko wax nañu créer commision d' enquête parlementaire wala boog procureur de la république bi koy dégg autosaisiru lijjanti xaalis boobu mu leer parce que élément yi am na parce que bu deputé taxawee ba ni président de la république am na tel élément. mais à l'Assemblée non non demal naa demal naa demal naa soxna si soxna si bu fekkoon ni rumeur la bu jógee Sénégal on pourrait comprendre affaire bi Canard enchaîné wax na ko service marocain yi wax nañ ko tous les services occidentaux recoupé nañ ko. affaire bi du affaire bu somp bu simple de nañu nañu xoolal nañu leeral affaire bi nañ ko leeral mooy affaire bi ay journaliste wax na journaliste wax na mais yow miy forum civil nga xam ni transparence ngay dox yow yaa war a bind ni nii dañ ko leeral te buñ ko leeralul parce que ñu leeral ko sax moo gën parce que buñ ko leeralul xëy na sax Sonko mi ñu ciy wax deful xëy na sax deful parce que kenn xamul xëy na sax deful li ko arrangé moom mooy ñu leeral bu ñu defee commission d'enquête ñu creuser ko nañ xam ba xam xaalis boobu fan la jóge ba xam xaalis bi am na fan la jóge kan lañ ko jox lu tax ñu jox ko ko lan lañ ci jublu loolu c'est le minimum quand même dans un état démocratique responsabilité état du du du Sénégal. responsabilité état la responsabilité société civile responsabilité lépp la responsabilité sax simple citoyen la. yow boo déggee ñu ni sa réew ñu ngi fay dugal xaalis boo xam ne dañ cay financer ay nit pour que bu ñu jëlee nguur gi changer contrat pétrolier yi dugal leen ci biir te ñooñu ñuy jiiñ ñi ñoom lañ jox xaalis bi taxaw nañ fii ni ñoom bu ñu jëlee nguur gi dañuy changer contrat pétrolier yi ñëpp dégg ko mais le minimum sax mooy nga leeral ba xam est-ce que li ñuy wax dëgg la walla fen la man neew ma dëgg la nee na fen new neew neew ma fen la en dépit de li ma ci xam te yàlla xam na li la ma ci xam bari na. mais doo ko wax mais xalaatuma wax ko ci àdduna dama ne la non déglu ma déglu ma rek. mais du tax non may mun a déglu ma. non xanaa devoir de transparence ma nga tënk Birahim Seck. yow wax ak yow neexul nag. Hmm. parce que da ngay topp ba mu sës. ah mais topp non non dafa li ma lay wax li ma lay wax lu leer la nekkuma ci position tuumaal wala tiñal qui que ce soit position citoyenne laa nekk citoyen Sénégal la n'est-ce ci réew mi laa bokk non am naa nationalité sénégalaise. exclusivement. sama réew man liir naa ci Canard enchaîné mu bind ni Pastef violence yeeg yëpp ni ñu koy financé yëpp xaalis la bu jógee Qatar le 7 juin Canard enchaîné boobu ma gisee la gisuma Ousmane Sonko porté ko plainte gisuma mu def démenti. gisuma ko te gisuma waa Pastef wax ci. gisuma gisuma leen aussi ñu wax ci loolu lépp gisuma ko. deux ñu dem ba jëmmi jamono beneen député ñëwaat taxaw assemblée nationale joxe plus de détails ci affaire bi. dem ba site ci président de la république la première institution du pays mu ni kii déjà mi ngi ak élément yépp yi jëm ci affaire bi ñépp dégg ko beneen journaliste bind ci ni d'ailleurs président bi mu demee dubaay am na Madiambal Diagne ñeneen ñu ñëw indil ko ay documents ki preuve ki élément pour étayer affaire bi man ma passé ay quelques coups de fil ñun ma 20 millions de dollars la ñu jógee Qatar ma wax ko tey ñëpp dégg ko fii waaw léegi jarul pour que mais François fion bi ñuy bi ñuy def commission bi ñuy bi pôle financier bi di ubbi enquête ba koy inculpé yooyu Canal enchaîné kese moo bind article benn journal kese moo bind article fii journal bind na député wax na ay journalistes indi nañ ay éléments mais nañ ubbi enquête nañ ubbi enquête. mais cest xool leeral. kan moo gën a jekk ci ibbi enquête. enquête yi bari na mais li gën avant ñuy ubbi enquête. il faut que organisation yi Sénégal yëpp nga xam ne dañ ni transparence moo leen tax a jóg wax nañ dëgg wala du wax ba yow transparence mooy yow yaa ngi wala nga tudd xaw ma ban organisation nga ni transparence moo la tax a jóg ñuy ruumanaat lu mel ni ci xaalisu réew mi. le minimum mooy nga bind. ni nañ leeral affaire bi comme ni nga koy defe tous les jours euh, Alioune Tine dama koy dégg chaque jour chaque jour muy wax na bind ni nañ leeral. tout sa société civile la nga xam dañoo bëgg affaire yi leer dañoo bëgg jàmm tey fii xaalisu terrorisme la ñuy wax ak kii xaalisu ay financé pour ñu déstabiliser réew mi pour mën a ñëw indi pouvoir bi pour changer ay contrat pétrolier mais ñooñu ñëpp te loolu yëpp day ànd ci loolu yëpp mooy mooy loolu mooy loolu mooy sécurité réew mi nañ bind ñoom ñëpp wax ni lii dañ ko war a leeral bu ñëpp d'accord yi dañ ko war a leeral ba pare forme yi bari na forme yi bari na mën def commission d'enquête parlementaire man je me demande sax ba xam le parlement n'avait pas se saisi de ça c'est le minimum ubbi commission d'enquête parlementaire dem Qatar dem fépp dem fii topp xaalis bi xam ñooñu ñu ni dañ dañoo mer bay wër Ousmane Sonko njabootam ak yooyu ñu xam ñan la identifier leen interroger leen <laughs> nit ñi comprendre tu comprends deux voilà bu ñu deful commission d'enquête parlementaire procureur de la République sañ na mu dégg loo xam ne nii jàpp na ni lii ay jëfin la yoo xam ne nii loi daf ko daan mu basé ci jëf yooyu pour ubbi enquête <laughs> yooyu yëpp mën naa nekk danga wax bi mais lii xaalis la boo xam ne dañ ko war a leeral tàmbalee ko nag fa mu commencé est-ce que xaalis bi am na ñu leeral ko est que xaalis bi joxe nañ ko ñu leeral ko kan moo joxe xaalis bi ñu leeral ko kan la ko jox ñu leeral ko lan moo tax mu jox ko ko ñu leeral ko fan la jaar ba jox ko ko ñu leeral ko jàmm ni ñooy bu fekkee dara amu ci kay enquête bi dina wane dara amu ci après